Euh, di di utiliser politiquement pour euh, <clears throat> pour daaneel lu nga xamante ne moom mooy institution de surcroît judiciaire Euh, pour man boo c'est c'est pas bien pour notre démocratie c'est pas bien aussi tamit pour fu ñu jëm mooy futuru futuru Sénégal parce que ñoo ñoo dernier rempart mm. et puis bon problème su amee foofu lañ koy yóbbu pour ñoom ñu àtte donc ñooñu aussi tamit faut les faut faut les faut les respecter et puis boo xoolee si euh, élection yi def nañ vingt candidats mm. vingt candidatures yu nga xamante ni ñoom recevoir nañu ko su fekkoon par exemple xam élection yi pas c'est jamais arrivé élection présidentielle ñu arrêté vingt candidatures euh, et puis plus ou moins euh, yoo xamante ne bon c'était nañu wax ni c'est acceptable parce que vingt candidatures ñu accepté ko pour man loolu bon voilà bu fekkoon ne am na ay suspicion peut-être benn candidat opposition du bokk comme dict comme pays yi nga xamante ni amul droit amul loi noonu lañ koy defee parce que am na ay candidatures yoo xamante ni yu bëri opposition bi la jugee je pense pas que su fekkoon ne ñoom dañuy def rek pour def wala dañu far dinañ accepté ñi nga xamante ni ñoo bokk si opposition bi ñu accepté leen loolu mooy benn ñaareel bi moom mooy Kajoor bu ngi koy marche. Ka kii comment ça s'appelle euh, mu doon attaqué Amadou Ba ne Amadou Ba c'est quelqu'un je sais pas kuy def ay coups bas affaire yooyu mais Benno Bokk Yaakaar mooy jàppale Amadou Ba mais comment ça se fait si affaire bu même même affaire bi Benno Bokk Yaakaar di dem mu ne dafay jàppale initiative bu PDS te Karim Wade moom moo moom mooy attaqué ñoom seen candidat loolu nan la mun nekkee loolu loolu moom donc man je trouve ça je trouve ça bon un ma moom mooy vi lu ñu si jublu man laa xamul xaw xam dañu bëgg a euh, je sais pas moi bëgg ñu daax ay élection xaw ma xam peut-être je ne pense pas même pas que c'est impossible ñu c'est mën a wax de façon globale rek moom mooy c'est pas bien pour notre démocratie que instance bu nga xamante ne mun na mooy instance bu gën a mag mm-hmm. à part Cour suprême moo gën a mag si instance judiciaire Sénégal ñu koy salfaañi y a eu ay précédents yoo xamante c'était dangereux en 93 bu ñu rey juge Maître Sèye wala Kéba Mbaye bu mu démissionné mais bii ni yoon aussi tamit c'est semblable et puis mm-hmm. bon c'est c'est pas bien quoi pour notre justice waaw waaw nañ ko mën nañ ko méngale quoi comme li am xewoon